jërëjëf ci teewaay bi ni ñu koy defee ay bés bu nekk fii ci seen chaîne seen US Global TV News fii ci New York ci plateau bi seen mbokk yi El Hadji ñu ñëw ci beneeni jotaayu immigré suma jumul mooy fukkeel ak juróom fii ci seen chaîne ñu fas yéene comme ni ñu koy defee ay bés bu nekk waxtaanee li gën a fës ci xibaar yi fii ci biir réew mi ci Amérique waaye ci àddina bi aussi donc ci États-Unis yaakaar naa ñi ci biir réew mi ñi ci biti lii ñi gën a jàpp bokk na ci eh, verdict bi nga xam ne moo dal ci kaw Donald Trump di ancien président te amoon procès fii procès au pénal ñu doon ko topp ci ay faux et de faux fii ci New York rawatina ci Manhattan eh, naka ci ajjuma ji ci la verdict boobu daanu charge yi tëgg woon ci korom kawam toll ci fanweer ak ñeent yëpp nee na ñu guilty guilty mooy coupable kon danañu dellu si jàngat loolu lan lay tekki ci wàllu campagne électorale bi mu ne lan la ko mën a yàqal ci wàllu politique lan la ko mën a yàqalit ci wàllu yoon kese ndax dana dem kaso wala du dem kaso naka la euh, bu sentencing bi jotee euh, yan daan moo war a mën a tege ci koom loolu danañ ci dellusi si ci lu yaatoo yaatu jàngat ko ci wàllu droit ci biir réew mi leneen li nga xam ne nii danañ ci ñëw bokk na ci wàllu euh, génocide bi nga xam ne moo dal ci réewu Palestine rawatina ci palestinien ca dëkke ca Gaza ci aljuma ji am na ci proposition boo xam ne ni président Biden def na ko mu lalu ci ñetti plan la mu yëkkati ay kàddoom mooy jot na fum ne ngir guerre bi jeex euh, loolu proposition yi tomb bu ne dañ ci dellu si ak ci yan réaction naka la ci gouvernement bu Israël réagir ak kuréel gi nga xam ne mooy Hamas di mouvement de résistance ba nga xam ne nii mooy contrôler moo yëlifoon euh, loolu nga xam ne mooy bande Gaza leneen li nga xam ne ni yaatu na ci xibaar yi ñu fas yéene ko waxtaanee mooy lu jëm ci wàllu mbirum immigration kii nga jawriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu immigration mu yor lu ñuy tuddee Homeland Security Secretary Alejandra Mayorkas la tudd dafa yëkkati kàddu. Euh, wax ci lii nga xam ne mooy wàllu demande d'asile yi li ñuy tuddee asylum process mooy mbokk yi jaar ci frontière bi dugg si ci réew mi te di file ni nga xam ne ni mooy asylum am na kàddu yum ci yëkkati ci yéenekaay bi télévision bi nga xam ne mooy CBS News ci benn interview danañu dellu si ci mbir moomu nga xam ne wax na ko ak proposition yu bees yoo xam ne ni administration wu Joe Biden ñu ngi koy def ci wàllu immigration loolu danañ ci dellu si jeexale nag suñu réew Sénégal lii nga xam ne ni ay bés bi indi na coow lu mag Sénégal bokk na ci ay journalistes yu ñu woolu woon mais surtout ab général boo xam ne nii moo nekkoon yoroon armée de terre bi mais yoroon aussi li ñuy tuddeele force spéciale donc euh, ñu wàcce ko euh, affecté ko feneen mu indi coow lu mag nag ndax euh, ni nga xam ne noonu lay yëf yi demee am na ñu jàpp ne. Euh, ay daan la am na ñu jàpp ne ay daan yuñ ko teg la ndax euh, am na daal baaraam yu wala bët buñ ko xoolee loolu danañ ci dellusi ci moom la ñuy tëjee donc euh, programme bi tey foofu ci Sénégal Donald Trump yéen ñiy suivre actualité ci réew mi gis ngeen ajjuma ji procès bi nga xam ne ni moom la New York tegoon ci kawam rawatina district attorney bi ñuy wax ki nga xam ne mooy procureur bi ñuy wax Alvin Bragg te waxtaan nañ ci ci ñaari émission fii nii waxtaan nañ ci bi ñuy tàmbale procès bi li ñuy tuddee jury selection durant procès bi li ñuy tuddee opening argument bi ñuy présenté la nga xam ne nii la moo lalu ci procès bi témoins yañ ca woo li ñuy tuddee witnesses bokku na ci témoin clé moom la ñuy wax star witness doon Michael Cohen doon avocat wu Donald Trump ba ci cëppaandaw gi bi nga xamee ne émission bii passé waxtaanee nañ li ñuy tuddee euh, closing argument mooy les plaidoiries yi ba juge bi naka la joxe li ñuy tuddee jury euh, select euh, jury li nga xam ne mooy recommandation ci jury bi ñu jox leen kees bi ñu tëju ci néeg def délibération yi yàggul dara bànn fan ñaar la ñu def délibération jury bi xamal juge bi ne ricc nañ li nga xam ne mooy verdict ndax fii nii procès du procureur wala juge bi mu yàtte procès boo gis Amérique dañ naan all trial are by jury lañ wax acte boo gis jury populaire la ay nit la ñuy tànn ci biir société bi ñu toog déglu preuve yi xool ni kees bi tëddee xool charge bu ne ne guilty wala not guilty donc Donald Trump 34 count la woon 34 counts yooyu noonu charges yooyu euh, charges yi tege woon ci koom 34 la li 34 yëpp lalu ci nag fooy usage de faux fraude bancaire waaye fraude 34 yëpp jury bi yàggul dara ñu dellu si ñu ne guilty mooy reconnu coupable ci yooyu yëpp léegi looloo waral juge bi ci boppam euh, daa di jàpp datu sentence bi nga xam ne li ñuy tuddee sentencing mooy sentence bi date bi mu war a prononcé daan yi war a tegu ci kawam loolu mu ngi ko jàpp July 11 mooy le 11 juillet ci 2024 bi donc Donald Trump. Euh, tey jàpp nañ euh, ne mu ngi doon lu ñuy tuddee convicted felon mooy il est devenu un coupable boo xam ne ni un ancien président mosul am ci réew mi nag président yi niñ toll quarante cinq président yi mosul am président bu ñu reconnaître coupable ci ay crimes wala ci délits yu mu def euh, tuuti kon loolu daal Richard Nixon 1974 mu démissionné bi mu démissionné ci la ko Gerald Ford daal di. gracier li ñuy tuddee présidentiel pardon donc Donald Trump moo nekk premier président fii bu ñu àtte reconnaître ko coupable maintenant euh, dëgg la sentence bi ñëwagul mais euh, boo seetloo kees bi ni mu tëddee euh, ak count li ñuy bëri bëri la ci lalu woon mooy faux usage de faux ay documents yoo xam ne faux la Donald Trump dafa am ndaw soo xam ne ni nee na jote woon nag Donald Trump am na lu ñu seqoon ci campagne électorale 2016 bi ci la Donald Trump ak i nitam jaar ci suuf def ab compagnie fay ndaw soosu noonu xaalis pour mu bañ a wax la nga xam ne jotoon na doxoon na seen diggante euh, donc du fay ga ci boppam mais nëbb pay gi ak nañ fayee jaarale ko ci jamonoom ka nga xam ne moo doon li ñuy tuddeew avocat personnel u Donald Trump di Michael Cohen Michael Cohen d'ailleurs mu ngeen ko fàttali ko dóor nañ koy ati kaso ci problème bi moom tëdd na ci kaso donc ñu jaaree ci suuf nag rembourser Michael Cohen donc nëbb pay gi ak document faux yi ñu utiliser ak compagnie bañ sedap li ñu tuddee LLC mooy limited liability corporation compagnie boo xam ne c'est à responsabilité limitée taxawal compagnie bi kese pour mën a def waaye transfert pour mën a def virement jëlee xaalis bi ci compagnie bi fay ko ndaw soosu noonu nëbb ko ba fay gi du am influence du ko du du du mën a wax dara loo xam ne nii ci wàllu élection yi wala ci campagne bi ba mu yàq campagne am loolu mooy fooyisage de faux yooyu moom la ñuy moom lañ ko toppee leneen la ca lang yëpp nag check yi ñu def faux compagnie bi ñu def waaye fraude bi euh, fraude bancaire bi loolu yëpp dafa taq ci élément principal ba nga xam ne faux et usage de faux la donc euh, loolu moom lañ moom lañ ko moom lañ ko reconnaître coupable maintenant yiñ fi wax yëpp ñeent fanweer ak ñeent ci charge yi ñu ko toppee low level felonies la mooy c'est des délits quand même des délits mineurs donc looloo waral experts yu bëri yu xool boo laajee jàpp nañ ne amaana tëdd atu kaso du ci am parce que low level felonies la mooy donc c'est des délits mineurs wala minime loolu mooy premier élément bi ñaareel bi Donald Trump amul antécédent judiciaire ndax bu ñuy sentence toujours ci euh, Amérique rawatina ci état yi parce que létat état de New York du federal case dañuy xool toujours background boobu xool li ñu la reconnaître coupable yan xeetu délit la ñu gis ne dëgg la délit moom lañu wax felony felony mooy loo xam ne mën na la coûter six mois de prison jëm kaw donc boo dajalee les trente quatre charges yi yi nga xam ne moom la ñu euh, wax ne Donald Trump def na ko. Euh, maximum munu ko coûter lu ëpp lu toll ci ñeenti atu kaso mais ñeenti atu kaso yooyu noonu bokkut ak boo doon atte ni tey ci wàllu fédéral xam nga juróom fukki état ni ci réew mi état bu nekk ak droit penalam ak procédure am ak na mu yàttee ci juróom fukki état yi mais fédéral bi moom bu ñu fa attee nit tey ba reconnaître la coupable war la daan bu ñu lay daan ñu juge ba mu ngi wéeru ci li ñuy tuddee federal sentencing guideline loolu ab loi boo xam ne ni lu ñuy tuddee federal statute boo xam ne bu ñu koy xool def naan diw bu defee nangam nangam ci atu kaso ngay tëdd moom la ñuy tax minimum sentencing bii ci wàllu New York amul loolu donc bien que boo dajalee eh, charge yëpp bu ci nekk ñu def lu ñuy tuddee le cumul des peines ak le cumul de charge boole ne feloni bi ñetti weer bee juróom-benn weer bii lii boo ko boolee buñ ko waroon doori ati yi kaso tey du ëpp ñeenti at mais juge bi loolu tënk ko mën na xool gis ne kii ñu topp mosul def crime parce que amul benn antécédent judiciaire c'était la première fois ñuy atte Donald Trump loolu number one la number two lii ñu ko toppee yëpp moom la ñu tuddee low level felonies mooy classe D la donc du ay délits yu sérieux yoo xam ne ni mën na coûter nit ki nécessairement ñi ne na nga tëddi ati kaso donc ñu bëri jàpp ne kon ci wàllu atte bi bu le 11 ñëwee buñ ko doon atte euh, bu ñu ko doon tegi daan atte nañ ba pare amaana mën naa bañ a tëdd kaso mën nañ wax ne alamaan nañ ko mën nañ wax ne li mu waroon tëdd kaso ñu def ko lu ñuy tuddee house confinement mooy tëj ko këram mu toog fa mën na nekk même li ñuy tuddee probation bu fekkoon ci droit Sénégal moom la ñuy tuddee sursis mais yeggaguñu foofu yëpp ndegam 11 juillet dana ñëw sax même buñ ci yeggoon yaakaar nañ ne sentencing du am parce que Donald Trump dana def appel dana def day d'ailleurs plusieurs appels te New York State boo seetloo ni appel bi doxee euh, lii mën naa jëli at balaa ñuy yegg ci li ñuy tuddee l'autorité de la chose jugée maanaam ba appel yi di vidéo ba yëfi ne këtt ne jonn ñu ne li mooy le verdict final donc ci wàllu yoon lii lu mat a xam la lu am solo ñu xam ko mën naa bañ a doon ati kaso mën naa doon probation moom la ñuy tuddee sursis mën naa nekk rek ñu teg ko alamaan walla ñu ne li nga waroon tëdd juróom benn weer danañu la ko tëj nga def li ñuy tuddee house confinement mooy <coughs> nga tëdd sa mu toog këram du génn loolu ci wàllu yoon la ci wàllu politique bi loolu beneen débat la ndax Donald Trump mu ngi nekk ci campagne électorale bi te boo seetloo datu 11 juillet boobu ñu tànn d'ailleurs c'est quatre jours wala cinq jours avant ñeenti fan avant ñuy tàmbali li ñuy tuddee de Republican National Convention mooy euh, congrès bi nga xam ne nii moo nar a déclaré Donald Trump nekk le candidat du parti républicain ñeenti fan avant donc loolu c'est extrêmement important maintenant légalement ci wàllu yoon. Euh, lii ñu ne def na ko ñu war a ko tegi daan ëllëg amul benn impact amul lenn lu muy laal ci légalement ci wàllu yoon ci wàllu campagne électorale am munu ko teree voté Donald Trump dëkkatul état wu New York te maanaam bu dëkkoon fii tey war a voté fii mën naa bañ a mën a voté mais xam nga ne bi mu paree ci premier mandat président sam dafa toxu Florida donc moom Florida résident nu Florida state la donc mën naa voté mën na continuer campagne électorale am mën naa sax falu novembre bii di ñëw bu ñu ko falee président kees bii nga xam ne ni atte nañ ko ba mu tegee mënul am benn impact ci moom loolu c'est extrêmement important donc amul benn lu muy yàq ci ay droits civiques am ci voter wala nekk candidat donc c'est extrêmement important maintenant mu des nag li ñu tuddee les conséquences politiques en tant que telles conséquences politiques yi mooy. Euh, naka la ñi nga xam ne ñooy voté surtout nag les les indépendants parce que réew mi système politique bi dafa limité wu limité boo xam ne ni daanaka ñaari candidat rek moo am am na ay candidats indépendants ku mel ni ne RFK Jill Stein mais xam nga ne ñii mënuñu gañe ndax réew mi ñaari parti moo am ñoom limitation parti soit parti démocrate la walla parti républicain ñi ci des ñi nga xam ne gisuñu seen bopp ci ñaari parti yooyu mooy li ñuy tuddee les indépendants évidemment indépendants yooyu ñooy fal ñoo ëpp lu ñuy impacter wàllu élection yi donc la muy tekki mooy ci wàllu politique ñu surtout ñu surveiller sax ci sondage yi ñëw da ngay gis ne bu ñu ci yeggee naka la indépendant yooyu nar a xoolee Donald Trump pour la première fois un président des États-Unis un ancien président nekk candidat mën a nekkaat président aussi nekk li ñuy tuddee a convicted felon mooy désormais ku koy xool rek da nga koy xoolee mu nekk euh, koo xam ne nii euh, criminel mën nga ko tuddee noonu parce que commettre na ay crime wala ay délit donc indépendant yooyu naka lañ nar a apprécier loolu parce que Donald Trump bu ngeen ko fàttali ko euh, keesu New York bi du benn kees bi am na bu nekk ci état wu Georgia ak ñaari federal cases mais yooyu yëpp terewul inculpation yi topp yiñ ko ci topp amul benn impact ci wàllu campagne am gagné na primaire yi mu ngi continuer di am ay fundraising di dajale ay millions mu ngi continuer di campagne te aussi mën naa gagné donc indépendant yooyu ñu bëri ci ñoom ñoom moom la ñuy surveiller parce que yu mel ni jaar na fi Donald Trump def na ay mbir yoo xam ne. képp ku ko mosa def wala nga wax ko sa politique yem na fii fii ci Amérique saaga na fi sénateur John McCain xas ko te John sénateur John McCain nekkoon héros nekkoon vraiment un véritable héros national boo xam ne ndax euh, dundam ci wàllu euh, guerre wu Vietnam mu nekk prisonnier de guerre fa papam maamam nekk ay admiraux yoo xam ne nii ci wàllu United States Navy Donald Trump. Euh, xas na fi famille Gold Star Donald Trump euh, gis nañu vidéo boo xam ne génn na fi ak wax yi bu ci jubale ci jigéen ñi ñu ne loolu scandale yooyu ku mu was dal sa kaw rek sa politique sa carrière politique yem na fa waaye terewul gañe na élection yi ñeenti at ci gannaaw donc moo tax ñu bari di xool lan mooy limite ba nga xam ne buñ ci yeggee nit ñi ñu fatt seen bakkan ne ah non du ñu voté la Donald Trump surtout les indépendants surtout ci état yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee the battleground state the battleground state c'est de mooy juróom-ñaari état yi nga xam ne nii ku ñu votel nga dem boo ko gañee wala nga gañe lu ëpp ci état yooyu nga gañee élection yi moo waral Biden falu bokk na ci Michigan Arizona ak yeneen yi nga xam ne nii Wisconsin ak yooyu donc euh, looloo waral ñu bëri di xool. bàyyi xel ci fan yi di ñëw sondage yi na génn lu ñuy tuddee natt waay nattukaay la yoo xam ne dana la jox li ñuy tuddee snapshot nga am nga am nga am gis-gis xool fan la élection yi jëm mais légalement amul dara lu koy yàq lu mu ko li xew loo xam ne yàqal na ko ko ci mu nekk candidat même bu bu ñu ko waxoon nag dañ koy dugal ci kaso bi du yàq lenn ci candidat am te bu gañee it loolu mënuñ ci yàq dara lenn Euh, leneen li mooy munul gracier boppam président wu Amérique am na lu ñuy tuddee pardon power moom la ñuy wax pouvoir de grâce bu fekkee ne kees bi federal case la lii état wu New York moo mooy accusation bi ñoom ñoo yëkkati ay daan toppee ko ko atte ko ba ñu reconnaître ko coupable ci guilty verdict boobu noonu donc munul pardonner boppam parce que ça relève de l'État de New York donc conséquences yi kon nga gis ko ne ci wàllu politique ci wàllu légal di ci wàllu lu ñuy tuddee conséquences judiciaires euh, lu mat a bàyyi xel la ci distinction boobu noonu donc maintenant c'est sûr que Donald Trump dana appel kees yooyu dana lancer appel et que appel bi mën naa jël yi at mën naa jël délai bu yaatoo yaatu boo xam ne nii euh, mën nañ dawal ay ati at yoo xam ne du tax kees bi vidéo donc am na yeneen yu des di ñëw donc lii lu ñuy surveiller de très près ci semaines yi di ñëw leneen loo xam ne nii euh, daanaka mën nga ko tuddee breaking news mooy loo xam ne nii euh, président Biden wax na ko ci àjjuma ji ñu muy déclaration boo xam ne nii déclaration majeure la mu ngi jëm ci wàllu ñaawteef yii nga xam ne man dama naan duma ko tuddee guerre guerre toujours ma wax ko ñaari armée yu jàkkaarloo waaye réew moo xam ne nii yaa ngi yor puissance militaire am armée bu taxaw am ay chars de combat am ay avions de combat am euh, navy di xeex ñoo xam ne nii ay civil lañu yoruñ ci loolu dara du guerre moo tax ma naan nag ñaawte fii Israël di def président Biden ci ajuma ji génn na def proposition wala xamle boog ne am na proposition bu tegee ci table ji proposition boobu dafa lale ci ñetti plan bu njëkk bi nee na proposition bi ñuy def mooy euh, ñu jéem a dakkal xeex bi ci lu mu bon bon ci juróom benn semaine pendant six semaines yoo xam ne nii ñu dakkal ko bu ko defee Israël daa di retirer ay soldaaram ci li ñuy tuddee populaire yi ya mooy ci zone ya nga xam ne nii ay zone populaire la non seulement mu retirer ay soldaaram bu ko defee Hamas ci boppam aussi libéré un certain nombre dotage ci ñim jàpp euh, ci otages yooyu bu boobaa ñañ ca ciblé mooy ñoo xam ne ni ay jigéen lañu ñoo xam ne ni dañu mage ci wàllu âge ak ñoo xam ne ni dañu gaañu en contrepartie bu Hamas defee loolu Israël aussi libéré des centaines ay téeméeri téeméeri palestiniens ñoom ba léegi bu boobaa prisonnier palestinien la ñuy wax mais ñooñu aussi ay otage lañu ndax ñi Israël jàpp c'est des dizaines de milliers ci yoo xam ne ni kenn attewu leen kenn toppewu leen lenn dañ leen di jàpp ne leen ràpp ci kaso bi ñu nekk li ñuy tuddee euh, administration euh, déten détention administrative donc loolu mooy phase bu njëkk bi deuxième phase bi nga xam ne nii moom la Euh, président bi wax ne bokk na ci plan boobu nga xam moom lañ teg ci taabal ji mooy euh, bu ñu dawalee ba six semaines yooyu mat bu fekkee ne Hamas respecté na nee na proposition boobu ko defee ñu continuer libérer lu muy tuddee euh, otage yi nga xam ne ni faatuwu ñu ñu ngi dund ba léegi mooy la deuxième phase ñu libéré nee na ci libération otage yooyu deuxième phase boobu ñuy libéré ñu boole ci ay soldats yoo xam ne nii ay góor lañu. parce que ñi Hamas jàpp ñi ñi dañ naan otage otage dëgg la ay otage lañu mais ñi ëpp ci ñoom c'est des militaires et des policiers donc bu boobaa deuxième phase bi mooy libérer ña nga xam ne nii ci ñoom ñu ngi dund ba léegi mais surtout ñu boole ci ay soldats yoo xam ne nii ay soldats góor lañu bu ko defee ñu avancer songu la troisième phase. troisième phase bi nee na ci la ñuy commencé li muy tuddee la reconstruction de Gaza yàqu yi yàqu na yàqu boo xam ne nii mënoo ko xayma am na ay universitaire fii ci réew mi yu étudier ay photo satellite pour gis yàqu-yàqu yi nga xam ne moo nekk Gaza c'est rendu invivable maanaam doomu aadama mëntu fa dund ci conditions yi ñuy nekk donc nee na troisième phase bi nag ci la ñuy commencé processus su reconstruction boobu noonu defaraat dëkk ba nee na bu boobaa bu amee ñu des ci otage yi nga xam ne moom la Hamas jàpp même bu dee ñu faatu lañu ñu delloo seen i néew ñi nga xam ne nii ñooy seen i mbokk lii mooy proposition bi boo boo demee ci réaction Hamas lii la daanaka lii moo màcc proposition bi Hamas defoon ay weer ci gannaaw israélien rejeté ko naka la président Biden jëlee parole jël kàddu bi mu sànnee kàddu ci yëf yi ci la gouvernement israélien yi génnee benn communiqué ne ñoom du ñu da jeexal guerre bi lu dul ñu libéré otage yëpp ñoom e ñu fuddu ndëgg ndigg Hamas militairement ba dootu ñu mën a yëngatu loolu mooy la proposition euh, ab ab loolu mooy réaction bi nga xam ne ni moom la euh, Benjamin Netanyahu génnee comme communiqué maintenant président Biden ci biir waxam dafa jàpp ne Israël objectif ya nga xam ne moom la fixé woon surtout lu muy tuddee objectif militaire yi yegg na ci kon jaadu na na guerre bi jeex mu ne guerre bi c'est normal mu jeex fu ne nii parce que président Biden gis na sondage yi gis na guerre bi réaction bi nga xam ne jur na ko ci biir réew mi gis na ko ci indépendant yi gis ko ci li ñu tuddee les progressistes gis ko ci xale yi nga xam ne nii ñu ngi ci diggante 18 to 35 gis na sondage yi xam na ne pour la première fois président wu Amérique mën na perte élection présidentielle te la koy waral bu booba mooy lu ñuy tuddee une question de politique étrangère mooy lii nga xam ne ni bitim réew la xewee mais da amerique dafa dafa dafa bokk fu mu ne dafa dem ba seey ci biir Israël ci guerre bi nii ndax ñoo ko financé ngànnaay yi nga xam ne moom lañ boomee barki démb 45 personnes foofu ci Rafa nga xam ne xale yiñ ci boom dañoo daggate ko seeni bopp dafa dagg. ngànnaay yooyu noonu c'est de fabrication américaine Boeing moo ko defar donc Amérique moo financé guerre bi xaalis bi États-Unis la jógee Amérique moo joxe ngànnaay yi fii la jógee Amérique moo joxe de diplomatic cover saa yu conseil de sécurité jóge ngir tegi daan Amérique mooy daw couvrir Israël ba ci barke démb procureur bi nga xam ne moo yor cour internationale criminelle mu ngi sàkku def lu ñuy tuddee application for arrest warrant dugal ci benn three judges panel boo xam ne nii ñi nekk euh, ci international criminal court jox leen ay preuve ne nañu topp Benjamin Netanyahu ak ki nga xam ne mooy son ministre de la défense Yoav Gallant Amérique moo jog daa di réagir noo xam ne ni ànd ak Israël daanaka dal ci kaw court bi euh, tëkku leen sénateurs yi def noonu ñi nekk ci house bi daal di def noonu donc euh, Israël parewul pour dakkal guerre bi mais lii proposition yu am solo la ndax lii la Hamas proposé woon ay weer ci gannaaw donc euh, président Biden maintenant ñu ngi xool parce que bu proposition amul guerre bi bu dakul am na sax boo ñoo xam ne boo leen laajee ñu ne too little too late ndax ñaawteef yi rey gi mass grave yi mooy li ñuy tuddee les fosses communes ak yàqute bi nga xam ne yàqu na ko ak ña ca gaañu ak situation de famine xiif gi situation humanitaire bi ak ñaaw yegg na foo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne amul tout zone de non retour mënuñu votel président bi nii boole ce kilifa yi démissionné ba ci semaine bi am na ci ñett ñuy démissionné ci pouvoir bi am na ku nekk département ñett ñuy démissionné yoo xam ne département d'état la ñuy jógee donc lii ak euh, yeneen évolution gis nga ñetti réew ci Europe yoo xam ne def nañu déclaration formelle reconnaître état Palestine gis nga di international code of justice provisional measures yi muy jël teg ko ci kaw Israël gis nga cour internationale criminelle mandat d'arrêt ya nga xam ne mu nga fay waaje génn ak fippu bi nga gis ci biir réew mi ak ci àddina bi parce que nit ñi gis li Israël def ak la ko ko ñemeloo ak la ko sañloo loolu lii ay conséquences politiques la yu mën a julal président bi ni dëgg la wax nañ fi léegi ne Donald Trump Euh, reconnaître nañ ko coupable et cetera mais still still président Biden ci jafe-jafe yu mag a mag la nekk ci bu lii continuer nii nii am na ñoo xam ne danañu fatt seen bakkan mën nañ bañ a votel Donald Trump banque seeni loxo toog seen kër te battleground state yi bu soppeeku amul rek mën na indi erreur bu mag a mag ci moom mu ñu bëri jàpp ne d'ailleurs loolu lii may wax ni lu mën a nekk la feeñ na ci sondage yi mën naa perte élection yi donc proposition bi danañu xool ci biir ay ayibés bi Hamas rafetlu na ko jàpp nañ ne lii moo doon seen proposition lii lañ waxoon ci ay weer yi ci gannaaw ay semaine ci gannaaw israéliens yi dàq nañ ko parce que lañ jàpp ne te li Israël di wax yëpp noot Hamas militairement libéré sondage yi euh, libéré otage yi ñaata ñaata weer lañ guerre huit mois ñu ngi def ñaawteef bi ñuy def bombardé rey yàq libéré wuñ benn otage buy dund terewul semaine passée rek cinq soldats rey nañ leen barki dem bu Hamas dóor na ay missile Khan Younes foofu la missile yi jógee dóor ko ca capital ba Tel Aviv donc danañu xool ci biir semaine bi lan mooy nekk officiellement naka la israéliens yi di continuer di doxale ak euh, naka la administration wu Joe Biden di fas yéene réagir ci proposition bi nga xam ne ni Hamas en principe sur le principe Hamas nangu na ko israéliens yi ñoo nekk di di push back ci côté boobu noonu donc loolu nañ ci bàyyi xel xool euh, yan évolution lay am ci euh, ñu tënk ci lu gën a gaaw rek ci wàllu immigration immigration kii nga xam ne ni mooy secrétaire homeland security di Alejandro Mayorkas moom moo yor homeland security homeland security fa la immigration dépendre dafa am proposition boo xam ne ñu ngi ciy liggéey mooy fexe ba ñi nga xam ne ni ñu ngi ñëw ci réew mi di demander asile ñu jéem leen a euh, euh, route ci yeneeni réew waaw ay réewu Europe bokk na ci Italie bokk na ci Grèce ak même Canada donc euh, ñañ cay cible nag bokk na ci ay ñoo xam ne dañu fekk baax réewu Colombie Costa Rica Équateur wala Équador lañ koy wax ak Guatemala donc lii proposition bu bees la boo xam ne nii junj nañ ko officialisé guñ ko mais presse bi publier nañ ko. waaw na nga gis euh, comme Angleterre nam def ci wàllu immigration ñay demander asile ñu jël leen bëgg leen yóbbu Rwanda xam ngeen ne foofu proposition bu amoon na ca Grande-Bretagne ba Cour suprême ba moo daal di dakkal loolu ñu dem voté ko loi donc ñi nga xam ne ñooy ñëw Grande-Bretagne di demander asile ñu rute leen yóbbu leen Rwanda fii tamit dafa mel ni ci loolu la administration bi di nekk di junju donc euh, Italie Grèce lañ wax ak Canada dans une certaine mesure fexe ba ñiy demander asile ñu fexe nu ñu leen di routé ci réew yooyu noonu danañu gis détails yi dañ ci gën a dellu leneen li nga xam ne ni constat la lu ñëpp gis mooy euh, ñi daan jaar ci frontière bi di dugg si wàññeeku na bu baax a baax a baax parce que gouvernement bi euh, administration bi da koy natt te ci biir mois de mai bi la daan ñëw jàpp nañ ne téeméer boo jël lu ëpp juróom fukk ak ñeent wàññeeku na ci donc y a substantielle ne nañ bu 54 pour cent loolu loolu donc euh, lu administration bi gis la la ca bokk mooy euh, réew yi nit ñi daan la indi ci lu bëri bokk na ci éléments yi dëkk yenn nit ñi daan transité dem nañu def pression ci réew yooyu noonu am na ci réew yu bëri yoo xam te dañuy exiger visa pour nga dugg si euh, donc ña daan xam ne ñoo daan organiser voyage yi lu ñuy tuddee les passeurs foofu aussi ñu ci bëri ci ñoom am na ñu jàpp ci yenn réewu latino yi fudd seen ndigg ñu bëri ñu ngi ci kaso bi mais surtout eh, jéem a dagg yëf yi à la source ka jógee woon Sénégal jaar wala Turquie wala jaar feneen ñu fexe ba imposer li ñuy tuddee ay visa de transit donc euh, téeméer boo jël daanaka juróom fukk ak nangam yi duggatuñu euh, la ko waral aussi mooy administration bi xam na li xew xam na ne ñu ngi jëm ci année électorale novembre la plus nag ñuy jege élection yi. plus immigration di nekk li ñuy tuddee a top issue donc loolu lu mat a bàyyi xel la leneen li nga xam ne ni toujours ci wàllu immigration euh, moom Alejandro Mayorkas euh, ci waxtaan wu mu séq ak chaîne bi nga xam ne mooy CBS News CBS télévision CBS News euh, mu ne li ñu administration bi remarqué ci ñiy dugg si gis na ci ñu bëri ñoo xam ne ni ñu ngi def li ñuy tuddee gaming the system wala to game the system mooy kees yu ci bëri nee na yi ñu gis mooy tappale ko lal mais ñi ngi demandé de ñi nga xam ne ñooy def demande d'asile asylum yooyu amuñu amuñu véritablement argument wala wala remplir ñu condition demande d'asile yooyu nee na loolu gis nañ ko à la frontière loolu mooy débat nag bi républicain yi di entretenir ñoom dañu wax naka jekk ne euh, the asylum system is broken lañ wax système ba yàqu na yàqu boo xam ne des na koy xalaataat defaraat ko looloo waral secrétaire Mayorkas nee na li ñu fas yéene ñoom ci administration bi mooy accélérer lii nga xam ne mooy demande yi ñuy dugal accélérer kees yi donc jéem a yokk li ñuy tuddee les juges de l'immigration parce que fa nga koy defee executive office of the immigration review accélérer kees yi ña nga xam ne ni remplir nañ conditions yi ñu ñu grind seen i kees euh, baaxee leen seen i demande may leen ko ñi nga xam ne remplir ñu ñu déporter leen e def lu ñu muy tuddee euh, expedite removal loolu mooy mooy euh, position wu administration bi républicain yi jàpp nañ ne loolu du régler problème bi ñoom li ñu wax mooy nañu fexe ba du ñu defati lii Donald Trump di tuddee catch and release mooy kii jaar ci frontière bi ñëw demander asile mu bañ a nekk ku ñuy libéré muy wuyu ji nee na il faut ñu dagg li ñuy tuddee des incentives di incentive mooy dagg li ñuy tuddee les mesures incitatives fexe ba kii dugg si dootul mën a dugg dootul mën a dugg mooy bu ñëwee mu war a nekk en détention le temps que keesam nekk ci yoon euh, républicains yi li ñuy accuser administration Biden mooy ñii ñëw la majorité dañu leen bàyyi ñu dugg nee nañu ñeenti at yi nii liñ ci bàyyi ñoom ne nañ xayma nañ ko ëpp na trois jëm 4 million de personnes toujours est-il que Euh, plus ñuy jege donc mois de novembre bi ci élection yi plus administration bi jéem a jox ay garanties surtout les indépendants waaw surtout les indépendants parce que boo jëlee dëkk bu mel ni New York euh, lii dugg si ci demandeur d'asile euh, cité bi bi mu ko xaymaa nee nañ ëpp na deux cent mille moo tax cité bi ci boppam aussi ñu changé seen i c'est un certain nombre de lois li ñuy tuddee the right to shelter New York naka jekk fu waay jógee ci àddina bi boo fi ñëwee. Euh, municipalité bi war na la foo nekk boo amul foo dëkk loolu maire bi changé na ko mu ne dem euh, bindaatul loi bi mais interprété ko neneen mooy right to shelter bi bokku euh, la ko taxoon a jóg bokku ci situation bu ñuy tuddee les demandeurs d'asile moo waral nga gis ñu bëri ñu dëkk ci ci shelter système bi li ñuy def mooy bu ñu amee 30 jours il faut nécessairement ñu génn. génn dem defaat application donc euh, immigration bi lii lu mat a mat a surveiller la fu administration bi ngi jéem yokk le nombre de juges pour accélérer procédure yi euh, seet ña nga xam ne ni kees ba jaar na yoon remplir nañ conditions yi ñu grant leen ñuñ grantul bu boobaa ñu accélérer procédure bi aussi de déporter leen euh, mooy expulser leen nu mu gën a gaawee lii maintenant wax naa ko keroog Sénégal lii waral complication bi ci yenn mbokk yi mooy changement de situation politique Sénégal donc dëkk bu mel ni Sénégal euh, situation politique ba changé na donc euh, loolu mën naa affecté euh, ñenn ñi seen kees mais toujours est-il que kees bu ne keesu immigration du kees global kees bu nekk cas par cas la loolu la ñuy tuddee fii on a case by case basis ku nekk yaa xam sa kees yaa xam histoire ba nga ci def yaa xam argument ak preuve ya nga ci def loolu la juge bi di déglu xool ndax remplir nga pour ñu may la sa euh, ñu may la li nga xam ne ni mooy sa demande d'asile donc loolu dinañ ko surveiller de très près immigration parce que plus ñuy jege élection bi plus muy nekk aussi mbir moo xam ne dana euh, dana dana intéressé mbokk yi d'ailleurs semaine bii di ñëw danañu am amal waxtaan ak avocat de l'immigration fii ci plateau bi gën a yaatal mbir moomu. ca réewu Sénégal ci lu gàtt fa la ñuy tëjee am na coow lu mag loo xam ne am na fa ndax. Euh, kii ñuy wax général Souleymane kande te jiite woon armée de terre bi te jiite woon it li ñuy tuddee les force spéciale dafa am wàccee buñ ko wàccee ba pare affecté ko yëf yi nag di niroog daan ndax dañu ko wàccee ci position yi mu yoroon cumulé woon ñaari fonction nekkoon patron armée de terre waaye jiite woon aussi les forces ñu jël ko def ko attaché militaire fële ca ambassade Sénégal bi nekk ca New Delhi di pays réewu Inde euh, li tax coow li juddu nag mooy attaché militaire ci ñu xool yëf ñoo ko daan nekk mu ay colonel te wàcce bi ñu bëri jàpp ne aussi am na lu ko lal genre purge ndax ngóor gi toog ci wàllu administration bi ñu toogeeg léegi am na ci loo xam ne nii day niroog purge ndax député bii di Thierno san Sall bind na ci démb ab euh, statement communiqué bu mu génnee jàpp ne mu ne munoo promouvoir munoo takkal ndombo tànk ab capitaine boo xam ne dañ ko raje woon gendarmerie tekki ndombo tànk boole ci sax mel ni kuy eh, kuy kuy humilier ab général boo xam ne ni def na ay preuve am ndax su la euh, général Kandé foofu ci Casamance liggéey bu am solo la fa def ci ñi nga xam ne ni ñooy fipp yi bokk ci MFDC MFDC donc yëf yi bi mu amee am na ci ci yéenekaay yi ñu ko bind déglu nañ ci ay journalistes convoqué leen ki nga xam ne euh, mooy directeur de publication bu quotidien am na keneen ku bokk ci kër gi ñuy wax di média bu Bougane Gueye Dany buñ ci waroon déglu donc yëf yi indi na coow ca biir réew ma ba premier ministre ba moom it génn na ci yëkkati ci ay kàddu moom Ousmane Sonko mel ni kuy euh, tëkku ña nga xam ne ni nee na euh, réew ma kan mënu koo yëngal ñi nga xam ne nee na seen loxo génnul ci mbir mi ndax am na ñu jàpp ne am na ñu làqu ci gannaaw mbir yooyu pour yëngal réew mi toujours est-il que même ci yéenekaay bii nga xam ne mooy le quotidien euh, xamle nañ ne général bii nii euh, mel na ni euh, décidé na songu décret bi nga xam ne moo tekki ndomo tànkam ak nommé ko ca kanamu cour suprême pour excès de pouvoir loolu xamaguñ si c'est officiel ou pas mais coow loolu am na am na ca ca biir réew ma ñu bëri jàpp ne nag am na lu lalu ci mbir mi ci wàllu politique ndax général bii nii Euh, bu ñu ko nommé woon ambassadeur ñu bëri jàpp nañ ne amaana du nekk controverse comme ni ko nekkee waaye poste bañ ko jox ay colonel ñoo ñoo daan am euh, post yooyu nga xam ne mooy attaché militaire donc coow la ca biir réew ma ak ci biir presse bi euh, Afrique confidentielle benn yéenekaay la moom it bind na ci lam xam le mu ne li indi yëf yi mooy Eh, premier ministre bu Ousmane Sonko dafa sàkku ngir jënd benn système bu ñuy wax Pegasus Pegasus euh, système d'écoute collective la boo xam ne ni israéliens yi ñoo koy defar mais nee nañu ab compagnie américaine moo ko license nee nañu bi mu sàkkoo loolu américains yi bloqué ko nee na loolu nag waxu bind la bu jógee ci yéenekaay bi ñuy wax Afrique confidentielle nee na ci la jéem a am même système d'écoute boobu noonu pour mën a déglu lu yaatu ci population bi jaaree ko ci Russie yi ñu ne Afrique confidentielle ne na ci la Russie wax ne pour mu am système boobu wala ñu jaay ko ko wala mu jot ci il faut mu dakkal li nga xam ne mooy les accords militaires de coopération yi am diggante États-Unis Sénégal ak France ak d'autres pays loolu la Afrique confidentielle wax nee na bi ñu bindee moom premier ministre bi pour sàkku loolu ci la. kii di général Souleymane Kandé pushback ci loolu ne loolu warul mun a nekk ndax lépp lu jëm ci wàllu défense loolu prérogative constitutionnelle bu président bi la. nee nañu ci loolu moom Afrique confidentielle yéenekaay boobu ci la euh, ci la premier ministre bi wéeru sàkku ci président bi ñu signé décret boobu noonu ngir wàcce ko waaye nommé ko attaché militaire yóbbu ko ca Inde lii moo nekk ci Afrique confidentielle euh, lu ci mënta nekk. problème bu mag a mag la parce que tout simplement lu mosul am la lu mosul am eh, jaxasoo bu mënta am wala réeroo bu mënta am mosul yegg ci armée bi mosul yegg ci gendarmerie donc am na ci nomination yoo xam ne ci nguur gu bees gi am na euh, euh, mel na ni am na genre purge boo xam ne nii lalu na ci toujours est-il que Euh, ñu ngi xool ay bés yi di ñëw ndax li yéenekaay yi wax dana nekkam déet ndax général bi dana attaqué décret bi pour excès de pouvoir ou bien dana jël post boobu noonu dem ci Inde en tout cas presse bi ci bindoon au niveau local euh, sàkk woon nañ ngir déglu journaliste yooyu noonu ci mbir mi Euh, mooy directeur de publication quotidien ak ñi nga xam ne ñooy di média euh, loolu euh, développement la boo xam ne ni mu ngi am peut-être fii ci ay bés bi di ñëw danañu xam mais développement majeur la ndax surprise la ci ñu bëree bëri ci na nga xamee ne noonu la yëf yi tëddee ci nomine li nga xam ne ni mooy wàcce boo xam ne wàcce nañ ko général Souleymane Kandé nga xam ne moo jiite woon armée de terre bi moo jiite woon ñi ñi nga xam ne ñi ñoo les forces spéciales mbokk yi donc lii mooy li gënoon fës ci seen programme fii ci jotaayu immigré ci seen US Global News TV fii ci New York euh, ay bés bi di ñëw danañu dalal benn mbokk boo xam ne ni day yëngu ci wàllu immigration c'est avocat ñu koy wax Siré Camara danañu waxtaana moom lu yaatu ci wàllu euh, immigration ci réew mi ci mbokk yi door a ñëw seen i demande d'asile Euh, yenn question yi nga xam ne laaj yi nga xam ne ñoo ciy dellu si euh, naka lañ mën a def ba seeni demande d'asile gën a yomb gën a gaaw euh, naka la wàllu immigration nar a influencer débat politique bi ci biir réew mi Donald Trump xam nañ ni mu taxawee ci wàllu immigration ak bu ñëwaatee jafe-jafe yi nga xam ne dana ko jur ci communauté immigré yi loolu yëpp danañ ci dellu siwaat ci ay bés bii di ñëw seen mbokk El Hadj Malick ci plateau bi ci coordination technique ak réalisation bi suñu xarit Cheikh Ahmed Tidiane Dieng jox leen daje ba euh, ay bés bi di ñëw ñi ñaan nag ngeen partager vidéo yi te abonné ci chaîne bi donc mën ngeen dem seen YouTube ngeen def subscribe seen US Global News TV ngeen partager vidéo yi surtout abonné ci loolu mooy jox chaîne bi doole euh, ñu ngi ci àndoon nag ak suñu sponsor habituel di la BHS US euh, Corp la BHS mooy filialu Banque de l'Habitat du Sénégal fii ci New York ngeen mën a nag ubbi seen i compte ak BHS mën a yónnee xaalis ak la BHS ñu ngi partout ci États-Unis numéro téléphone baa ngi noonu ci suuf 212 447 12 00 mbokk yi kon ñu ngi leen dox daje ba euh, beneen yoon ci ay bés bii di ñëw fii ci seen US Global News TV. Allah